Sembilan jam. Gupu gupu gupu fada, gupu leher lep. Bismillah cop do mi ñay. Xol xol ba. jam jëm ba. Sina tambar, ñona <laughs> fuma min. Mané ko ñona fuma min. Problème bi moy nak jauh yi dañu xawul koy jaar bu ma jaar ni damay ragal delu dellu fa ma jóge woon xal ma def do ko tanga sa ba va neen def waa ah, Tamba <laughs> ñëw naa Tamba ñëw naa Tamba ma ne ñëw naa Tamba xale ne def waaw ah, merci jere jërëjëf jërëjëf lay wa Tamba ñoo baax rek <laughs> boy neen def ça va waaye man du ma leen ci morom xale te na ngeen da ngeen da ngeen lu doon ndànk te man dama di mag. waaye lii moom mooy lan Tamba moom bari na moto di. koy taxawal waaw man daal dama fee wàcc waaye dama xamut bu fu may aw laa xamut ndax dama fee gëj dama fee gëj yàgg na trop kon loolu nu mu mën a nekkee yow yow yow yow noo mën a ñëw fi nga xamante ne xam nga nga war a jëm. am naa fi sama jarbaat lay seet di riise la tudd man ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay muy sama jarbaat am xaalis lool ma ñëwoon doon ko seet léegi nag. waa pexe kon nga daal booy am na est du mbéy mi noonu nga. mën na kuréel jëm. ah mën na la kay. mën na jëm booy. ah ca joxel téeméer ñi ren. ah booy téeméer bëriwul. yow mën naa dara xamul. waaw même bu xamee la. def na problème. kay ngay mu <laughs> sama gis man pare pare naa yow nag da ngaa a fexe fexe ba nga dem faag léegi taxawal taxawal ma laajte taxawal ma laajte taxawal ma laajte taxawal parce que yow yow yow yow da nga xamal fu nga jëm yaa xam fi ma jëm yow xam nga ne fii Boy, taxawal salaamaaleykum <laughs> booy sawa neen def sawa waa Tamba moom miin sax booy Tamba kay maa mën a xamal ne neen def man <laughs> daal booy sama kër jarbaat laay laajte te soo ba léegi kii mi may yow kana moom gu xóot gi mënu am nga loo ree xam naa xam naa booba léegi ñu ngi may fu ne ma tàmbaa gi yëpp nag waaw day am mais man nag bugguma lool soo kër jarbaat laa jëm man ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay Idrissa la tudd sama jarbaat bu am xaalis la Idrissa Gaye waaw ku am xaalis la këram laa jëm bon Idrissa Gaye non man kooku est-ce que xam naa ko fan la la waaw man père xaw ma foofu de xam ah père mooy bëgg a ëpp eh, de yow dañuy dañuy romb fii non da ngay laajte pour ma ak yow pour ma yow yow yow yow su ma waxantee nga doon ma ci gàttal dama lay ñuus. ah père yow da ngay laccé wa légui xaw ma. déggoo ma de. léegi xaw ma. waaw yamal foofu. xamoon naa foo sax mais légui xamatuma. soo ko xamee yàlla naa dee. xam naa foo léegi te nga doon ma dama lay ñuus. ah kon nan ne. nan ne yow da maa baax rek. yow xam naa tey xoolal 500 la wax mais 3000 nga may fay. ka fay 3000 mo kala. yow ka fay 3000 mo kala. bal bal samay daal. daal. yow nag moom. taxawal may ma laajte taxawal may ma laajte. laajteel gaaw a yow moom. ma xaw a yàqal bu doon boo xam yow man yow su ma yàqamti war ngaa wax. non Fer yow nga wër yow nga wër loo ma tàmbaay wax yow mi xam nga foo jëm. déedéet su ma waxul war a wax. xam nga jëm yow yaa xam fi ma jëm. xam nga foo jëm yow doo ma dimbale yow. yow du ma la jàppale yow xam nga yow. ay turu jigéen dafa am si kàtt yow. yaa ma nag tànn. salaamaaleykum. ah na def waay ku baax ki nañ ini. Mendal alhamdulilah ça va <laughs> laay tàmbaa ngi man daal sëñ bi ba ma ba léegi maa wër ah. sama jarbaat daal laay wër waaye daal fu <laughs> <laughs> waaw Cheikh Omar <laughs> Cheikh Omar. mu Cheikh Omar yaa leen laal ak sëb ci gim nii. waaw moom la de. gone yi gone yi bu ñu gis gis daal. bëgg gisaane si kii moom danaan laas laas yaa moom bërëb bi. ah Cheikh Omar fii moom baax na di. yaa fii man sa waa ji laay wut ba mu xëyee ba léegi maa ngi fi war a mën ah man kat saa yi xaw ma xaw ma këram na man xam nga dama fay gëj nag. dëgg la ñu fi gëj yëpp ay ay góor ngeen mën a sàcc ginaari jaaw di ma bëgg a dee Cheikh Omar rek. <laughs> la xale yi saa yi daal wala moom xanaa des ci ceeb de xanaa amu fi moom. ah ah yow de Cheikh Omar da ngaa yàgg si moom sa <laughs> mbon gi yàgg nga ci de Cheikh Omar la <laughs> xale yi ah, dëgg la de ah dëgg la am problème am problème kër gi moom xam moom wala saa yi moom yow yàgg moom léegi da ngeen. dëgg la non moom nag léegi daal. waaw. góoru jumaa bi. nu nan la. waaw moom moo jàkkaarloo jumaa bi. maanaam damay dem nu may nu may def teel a borom xam-xam. waaw non nii ngay def rek soo demee ba ci bopp koñ bi. waaw tout droit. ah man de sooy daf maa jaaxal ndax man boobu léegi fu ne wër naa mun ma fexe ba xam ko xam fan la féet. dëgg la dëgg la ah lii dafa. ah dafa métti dafa métti trop. ah kon de su ma yeboo jéem a yegg fa rek nga dem fii añ bi jeex na ah, ah de loolu kay laa mënut wax dëgg yàlla si xam nga xaar kay mënu ma ko nag. xaaral ah, dem rek xaaral dem yoraw foofu da doo joxe wala wala joxe woo dara yow kay Cheikh Omar yow kay yow kay moom yow kay yàgg nga si ñi nga mel yow nii moom bés boo ko naree magataale moom boobu xar suuf si dugg ci Cheikh Omar da ngay xaru rek xale boo xam ne kenn mënu génn si moom dara Cheikh Omar day font rek xoolal mbedd mii ngay ñam soo continué nee nañ ba ci weer wetu jàkka ji jàkka ji kër gi ñoo jàkkaarloo yow mos sama di ma ma sama di bee ma gën a sopp yow mii yow ku la gën a Oke boy Okay, dapat rek kay demal rek itoban jadi nah bola ñi kan rax do ben xana man mo mu juga kan? Lihat sa faraw apa ah du katak nga tak de nga tak sama yaram ini. lo tidak jongi. jonge Ibu. Direk aku kata. Sargiang. Wanyong ko, wanyong ko, wanyong ko. Ano ba yun? Ya? Ang gating sa harapan ng lo? Eh! Kung ganun na siya, Jimon? Tahol! tahun, ka lahat? Tahol! Tahol! Tahol! Tahol! Nandugo ma ma ma dugu bude fira ma joxo sa 200. Nandugo bude fira ma joxo sa 200. Man So dugo da perte xaliss de. Eh eh eh, tawalo. Eh eh yàlla nga yaakaar ni dama ñàkk fële ba lay ah fere sama xaalis fere. tey laa nar ñu bëgg a bëgg dugg. sama xaalis fere. ndax wala yow la nga fay sama eh, eh boy, bàyyi ma. tax lay bàyyi. booy damay. sama xaalis fere. yow xanaa da nga yaakaar ni man damaa xaw amul samay droit. boo amee samay droit dama amul samay droit. sama xaalis da nga booy bàyyi ma. sama xaalis ma xaalis bi gën dafay néew. waaw tey dama lay door de. nan dama lay door ni ma ngaa dama lay door ni ma ngaa dama lay door ni ma dama lay Juga nggak ada mau pun kiri mom dalam mom. Nomor kor, juga. Kim. Kau nak itu lemas tu dah. Kamu, kau ni apa? Kau ni apa? Lepas lemas tu. Ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, Tambah ayam. Kau yang dia. Ni masuk. Ni lemas tu. Ni ayam, ni ayam, ni ayam, ni ayam. Malaysia. Ni masuk. Kau yang mana lepas, mana lepas, mana lepas, mana lepas. Mama. Baby guy. Hey, hey. Mama nak nak lepas, nak. Nak, nak, nak. Kau yang. Kau yang. eh naa fee. naa fee kontaan naa fee. Bakar. eh kay. yóbbu noo yóbbu noo. eh kay kay. eh kay. lu mel lu mel. oh paa bi yóbbu. defoon naa ñaata loo yore. cinq mille la may jox. cinq mille. defoon naa defoon naa. trois cent laa ko jox. cinq mille nga may jox leer yow. waaw defoon naa defoon naa. defoon naa. waaw defoon fay naa defoon naa defoon. nañ dem yow. yow boo ñëwee da ngay ñëw fii fii. kii kii kii kii dafa soob. waa kañ la waa kañ la. Njaay Njaay bul jooy nag Njaay Njaay bul jooy. walaay ma walaay jam ba. ça va. ay ah Idrissa. Idrissa dama sonn de Idrissa. yaa ngi jam ba Njaay. maa ngi jam Idrissa. ça va na ngeen def jànq. ça va. yaa jam. man daal Idrissa. ba ma xëyee moto bi ma jël. maam midi laa waat ci dëkk bi midi. midi midi. maanaam moto mom wërale na e fa mom balaa moom balaa indi fii. loolu nga man di Idrissa sama booy moomu tooñ. mais ku la fekk ngay xuloo borom mu di ñu wax. moomu tooñ Idrissa xam nga man du ma tooñ man du ma sama sama to to fam am ko kay dese gitu mar sompagne des fak mom mané ko togal ma dem tamba wuti suma me so yalla dina indi ça va ki mo ni mo ni ni ni ki ko sama sama sama ah dama xamé wut nen def ça va bébé sama ni ah Jadi saya itu Aku tuh yang juga yak Ini Nijai nak, iya ini nijai. Dan ndak nak lewe. Ndak nak. Bebe leen def lay ah wër nga wër bay bëgg a dee sa dawal ça va yaa ci bëgg ça va c'est Idrissa na kii rakam la ah am na dara dara dara rek dara Idrissa dara moom dara la rek dara dara la rek dara dara la ça va alhamdulillah ça va ça va ça va

dan si doole ya? rek ma tax a Idrissa. maa ngi lu ñew ma door mu daan lu ñew iya, ah. iya, rek ma door mu daan ni nga melni ma la wax li ya mag nga nak aw ma ci sax sentiment ay lu may sikki sax ya mag nga de. mo ma fay lol ma fay lol lu ñew do ma door maa fay lool moom. damaa fay lool. waaye. weer bi feeñ na. ها عندي روما نان يو وير وين يو ويربي وير كوربي يو يا مانا فن نيجا ايه دوخول يو خول bi iya, iya, kan? bi doon ñu ngi seen bi kenn lañ fi indi ya ada kapan ya? tel man magum jëm ni man dinaa war? ci ay weeri téléphone yi weer ba ci asamaan si laal feeñ na dang na dang nga gis ko xam ne lii fan ma whatsapp lañ yor da koy photo Idrissa dugg yaay gis ko man jamono démb ci téléphone suba di nga woor force mën naa woor de mais ci neneen mais Idrissa wooru téléphone du ci woor ni jaay weer yi feeñ sama lu si doon weer xanaa ma gis ko fii Idrissa mën na ba ma ci weeru weeru téléphone yi kumba kumba daa estati yow kumba daa xatan ñëpp yow da nga xam kumba yow ku soo xamatu bi day feeñ weeru téléphone moom ku la ne weeri feeñ te bind ko ci téléphone alaaji Idrissa alaaji wala Yo, yo, tamit yow eh, yo, eh, eh, yo, mo yow alaaji ma yo, ma ne yow ñi ngi wax fii ñoom ñëpp a yo, alaaji yo, waajeen yo, waajeen Idrissa yow man ak yow man ak yow de balaa ñu ko ci ko la naa la woon weer du ma woo mënoo fexe bu ma woo ci weeru téléphone bi bu ma woo waaw ni ngay waxee nii nag maa tey ja tàng Yo, Idrissa maa tey ñëwul koor rek yow man sama njaay moom lay lay lay en tout cas kenn du fi nekk doo woo yow ci kër gi laa lay ñuus ba nga duuf yow nga nekk gan rek nga naan yow da ngay nii man damaa xamul yow sa immature bi man yow kañ ngay nekk mature bi Ndiaye. gisee du bu 5 ans la yow. wax di dàgg ci asamaan daal Fall. bu keroogee ma jéem a woon weer wi. su ma ko am si génne weer yi. c'est simple.